waaw asalaamaaleykum tey ñëwoon nañ doon fekke bis bu mag bu am solo muy le 11 mars ñu ko doon célébrer tey ngir euh, màggal bis bi Serigne Touba jullee woon jumaa ji jumaay njaareem euh, mu tombe tamit ren di centenaire bi muy lu rëy loo xam murid war nañu. jóg di màggal bis boobu moo tax wax naa comité d'organisation bi luñ ko gën a mën a yaatal ñu yaatal ko ndax dafa bokk ci calendrier culturel yoonu murit wante gis na le 10 mars 1924 ba le mars mille neuf cent deux mille vingt quatre yàlla dogal na ne le 10 mars 2020 ci waxtaan wu juddoo rek ci samay ñaari xarit kenn ki moo nekkoon chef de centre sëriñ Assane Fall Dia ki ci des di kilifa cadastre bu njaareem muy Abdoulaye Fall waxtaan wu judd ci bañ gëstu statut juridique wu yi njaareem ndekete bi sëriñ bu mag bi joxee ndigal sëñ maam Cheikh Issa mu jëndoon tool yi wax nañ ci ñeent fukki dërëmi ngurdu teewul buñ ko liggéeyee ba pare it ndeke colonisateur bi da ko immatriculé ci turu boppam kon jumaa ji wax nañ ne sëriñ bu mag moo joxoon ndigal ñu jënd ko fiñ ko def mu tabax ko julli ko want taxutoon mu nekk ci turu sëriñ Touba le 10 mars 2020 ci lañ ko le immatriculé ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul euh, ñu le 10 mars 2020 nous di 3 hectares 87 ar 41 santiar jël nañ ko def Cheikh Ahmadou Bamba Khadim représenté par Cheikh Ahmadou Mountakha kan biñ tur carte d'identité sëñ Mouhamadou Mountakha lañ sukkandiku pour def ko mu représenté communauté mouride bépp représenté Cheikh Ahmadou Bamba immatriculé ci turam loolu dafa bokk ne ci suñu liggéey ñu gëstu di xeentu jeexitalu sëñ Tuubaa yi lu mel ne kër ga ne Mbàkke doon stade ñu def suñuy pexe reyante ba nangu ko def kër Sëriñ Tuuba bokk na ci it ñu liggéey pour que ci wàllu sécurisation lépp lu aju ci Touba ñu ciy liggéey ci ndoxu Touba Lac de Guiers Touba Mbacké di liggéey ci sécurisation Touba ci lépp loo xamante jëm na ci wàllu ressource su ak ci wàllu sécurité donc man ak ñi may àndal sama ay collaborateur ay fiti Sëñ Touba taalibi Sëñ Touba ñun bu ñuy xalaat dañuy xalaat Touba dans cinquante ans Touba dans vingt ans moo tax lu bari duñ faral di bokk ci yëngu-yëngu yi dañuy dañuy nekkee côté rek pour xool yi li nga xamante ni danañ dem ba àddina dab yoon wi wala mu dab Touba teel a anticiper liggéey ci pour mën a aar Touba juridiquement mais aussi jeexitali sëñ Touba yi mu fi bàyyi ñu woon ko fay sécuriser ci voies yi nga xamante ni moom la yoonu Sénégal. maye kon nag ñun fi ñu taxawee ci liggéey seen Tuubaa mooy xool fi nga xamante nit ñi seen xel jëmu fa wala jubluwuñ fa ñu jéem a gëstu foofa xool lan lañ fa mën a féete seen Tuubaa ci fànn yëpp nag ci muy ci wér-gi-yaram muy ci sécurité muy ci assainissement muy ci ndox mi muy ci fànn yëpp loolu daal mooy suñu teewaay tey

am rew ñaar ñu développer ay institution yu forte ak secteur privé bu dynamique institution yu wër yo xamante dess su leen ger dañuy taxé nday yi seex duñ luubal alalu askan wi duñu duñu tamit neub doom duma doom wanté lay tax emploi am état mënut créer emploi ay ay conditions lay créer secteur privé dynamique bi moy les acteurs locaux li jëm ci cham gi li jëm ci mbay mi li jëm ci nap li jëm ci transformation li jëm ci formation ak njàng mi ak wér-gu-yaram loolu mooy booster économie dëkk kon nit ñi dañoo war takk seen ndigg ñeme ñeme tool yi ñeme napp gi ñeme ñeme mbay mi ñeme aussi transformation mais aussi ñeme formation ndax secteur privé rek moo mën a créer emploi yi nga xamante mooy mooy naatal réew salaam. réponse bu am solo ñu ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf.